من تقبل روايته ومن ترد بناقل الأخبار شرطانيهما عدل وضبط أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا حرما مروءة ولا مغفلا يحفظ إن يملي كتابا يضبط إن يروي منه عالما ما يسقط إن يروي بالمعنى وضبطه عرف إن غالبا وفاق من به بِهِ يُصِفُونَ الرحمن إن زكاه عدل والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح أو كان مشهورا وزاد يوسف بأن كل من بعلم يعرف عدل إلى ظهور جرح وأبوا والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح ما لم يوثق من بإجمال يرح ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى وفي الأنثى خلاف قد زك وقدم الجرحى ولو عدى له أكثر في الأقوى فإن فصاله فقال منه تاب أو نفاه بوجهه قديم من زكاه وليس في الأظهار تعديلا إذا عنه روى العدل ولا ولو قصى بذا وإن يقل حدث من لا أتهم أو ثيقة أو كل شيخ ليوسم بثيقة ثم روى عن مبهم لا يكتفى على الصحيح فاعلمي ويكتفى من عالم في حق من قلاده وقيل لا ما لم يبن وما اقتضى تصحيح متن في الأصح فتوى بما فيه كعكسه وضح ولا بقاه حيثما الدواعي تبطيله والوفق للإجماع ولا افتراق العلماء الكملي ما بين محتج وذي تأول ويقبل المجنون إن تقطع ولم يؤثر في إفاقة معا وتارة مجهول عين ما روى عن عنه سوى شخص وجرحا ما حوى ثالثها إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا للعيون لا يرد رابعها يقبال إن ذكاه حبر وذا في نخبة رآه قميصها إن كان ممن قد شهر بما سوى العلم كنجدة وبر والثالث الأصح ليس يقبل يقبل من باطنا وظاهرا يجهل وفي الأصح يقبل المستور في ظاهره عدل وباطن خفي ومن عرفنا عينه وحاله دون اسمه وناسب ملنا له ومن يقل أخبارني فلان لو هذا لعدلين قبوله رأوا فإن يقل أو غير أمره أو يجهل بعض الذي سماهما لا تقبل وكافر ببدعة لن يقبل ثالثها إن كاذبا قد حلل غيره يرد منه الرافض ومن دعا ومن سواهم نغتضي قبولهم لا إن رووا وفاقا لرأيهم أبناء أبو إسحاق ومن يتب عن فسقه فليقبل أو كاذب الحديث فابن حنبل والصيرفي والحميدي أبوا قبوله أبدا ثم نهوا عن كل ما من قبل ذا رواه والنووي كل ذا أباه وما رآه الأولون أرجحوا دليله في شرحنا موضح وصحوا ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه لكن بفرع ما قدح أو قال لا أكوره ونحو ذا كأن الذي فصححوا أن يؤخذ وآخذ أجر الحديث يقدح جماعة وآخرون سامحوا وآخرون جودوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا وقبل من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصله الردى وقابل قبل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهمه حيث أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وصيد بأن يبين عالم وعالد وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني العاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإثنان فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبات ثبت برو وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل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 عنه سوى شخص وجرحا ما حوى ثالثها إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا, إلا للعدول لا يرد رابعها يقبل إن زكاه حبر وذا في نخبة رآه خامسها إن كان ممن قد شهر بما سوى العلم كنجدة وبر آه... kon آه، بيديو إلى la li nga xamante ne moom mooy <coughs> euh, li nga xam ne moom mooy masala bi ñu waxoon ne ci lay dugg ci jotaay bi ñu war a tàmbale maanaam nga xamante ne ci jotaay bi weesu ci la ko jël euh, te moom mooy di wax ci li nga xamante ne moom ñoom ñooy al majhul maanaam ku ñuy wax maj al majhul al majhul nag mooy ku ñu réere mooy koo xamante ne dafa am lu tax xamuñu ko ndax mi ngi jóge ci jahila bi tekki réere ñàkk xam euh, kooku ñu réere nag euh, am na mbir yu war a mën a tax ñu bañ koo réere li aju ci kooku ak ay àtteem loolu maanaam moom lay wax nii ndax bu fekkente ne dañ koo réere dafay am ay àtte yoo xamante ne day daal di tegu ci kawam ndax képp koo xamante ne dañ koo réere wala ñu am lu ñu réere ci moom dëgg-dëgg rek dañuy daal di àtte ni dañ koy jam wala dañuy seede ak maandute ci moom ndax dañuy jàpp ne jullit la rek kon war naa baax wala nu ñuy def euh, loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ñu war a traité nii walillahi wal minna inchaa allah yàlla nañ ci yàlla jàppale ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, ñooñu nag ñeent xeet lañ ki ñuy wax majhulul ayni kooku lañu njëkk a traité moom ku ñuy wax majhulul adala ak ku ñuy wax majhulul xaal majhulul ayni mooy jëmm ji lañ ñàkk xam maanaam dañu xamul kan la jëmm ji ci boppam lañu réere moom existence am dañu réere am koo xamante ne moom ak maanduteem lañu ñu réere dañoo xamul ndax maandu na wala déet am koo xamante ne moom xaalam la ñu réere majhulul xaal mooy koo xam ne moom la ñuy wax almastuur maanaam moom euh, dañ koy gis nii rek mais xamuñu lu lu ñu war a mën a teg ci moom ci mën a wax ne kii daal maandu na dëgg-dëgg wala boog maanduwut am ku ñuy wax majhulul ism awin na nasab koo xam ne tur bi lañu ñu réere wala askanam euh, ñii ñoom ñooy ñeenti xeetu ñi nga xamante ne ñoom ay majhul lañ léegi nag muy wax li nga xamante ne moom mooy àtte bi mu ne wataraku bàyyi nañ maanaam boroom xam-xam yi lu ëpp ci ñoom rahmatullah alayhim ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci fànn gi ci wàllu xadis ñoom dañoo bàyyi majhula aynin ku ñu réere ak jëmmam maanaam dañoo bàyyi di solowee ci koo xamante ne dañoo réeri jëmmam bu boobaa du ñu mën a solowee ci moom te loolu dangay gis dafay am da ngay gis koo xam ne euh, day tudd benn waay boo xam ne kenn xamul kan la euh, parfois day fekk ne moom moo ko créé te loolu foog ñu comprendre ko loolu day am ci xadiis yi dëgg la mais am na aussi euh, ci suñu mbir léeg-léeg ñu tudd benn nit boo xamante ne dañu la moo fekke woon événement sangam en réalité nit kooku existé wul en réalité nit kooku moom existé wul euh, am na yu bari nag yi koy indi mooy bëgg laye loo xamante ne du lay wala nga bëgg laye lu dëgër waaye amuloo ko lay walla ak parparloo wala bëgg yëkkati maanaam bëgg ut càllale bu gàtt nga def ko comme ni nga xamante ne moom la euh, euh, Muhammad ibnu Saleh Muhammad Saleh al-Fulani afallahu anhu li nga xamante ne moom la def boo xoolee càllale yu bare bare danga koy gis Muhammad euh, Salih Al-Falaani gis même musalsalaat bil awal yooyu da nga ciy gis moom turam def ciy feeñ lu bari wala euh, yeneen kii moom en fait dafa créer ku ñuy tuddee Muhammad Ibn na kooku existé wul en fait ak kook kooku tamit existé wul wala alwalaati maanaam ñaari nit ñoo xamante ne daf leen créer pour gàttal càllale bi càllale mi gën a gàtt bu alxaafis ibnu xajar ak ñu mel na ñoom rahmatullah alayhim en réalité existé wuñ ñooñu moo tax ki ma gis mu def ci attention vraiment te ànd ak dafa indi càllale bu gàtt ànd ak dafa indi ñaar lañ mooy euh, te sax ki nga xamante ne moom moo ci gën a vraiment def attention indiwul aucunement lu jaar ci Muhammad euh, sa euh, boobu noonu alfulaani mooy آه، إمام الشوكاني رحمه الله إمام الشوكاني تي سبتو بي تموي إتحاف الدفاتر خوما أنا أنا نمكت الدواي أنتوكا سبتو بابو gis naa ni amul benn càllale bu mu jëlee ci saalex alfulaani xatta riwaaya bi nga xam ne moom mooy riwaaya bi gën a gàtt sax imaamul Buxaari rahimahullah jëlewu ko ci moom ci parce que riwaaya boobu daf ko jëlee ci Muhammad ibnu Sinna moom te Muhammad ibnu Sinna boobu boo xoolee en réalité existé wul parce que boo xoolee diggante bi maanaam dafay gudd fan maanaam ñoom ñaar dañuy gudd fan gudd fan gu jéggi dayo dem ba nga xam te ne dañuy dem ba ay deux cent années la ñuy dund yoo xamante ne ba pare boole kook nee na Faas la nekkoon te waa Faas kenn solowu ko ci moom kenn xamu ko en tant que taalibe kenn xamu ko en tant que sëriñ et cetera maanaam ay mbir yoo xam ne buñ ko racolee dañuy xam ni en réalité ki existé wul te loolu moom mooy li nga xam ne moom la ñaari xaafiz xumaariyuuna yi xumaariyaan yi ñaari ñooñu rahmatullah alayhima wa radiya anhuma muy alxaafiz ahmad ibnu muhammad ibnu siddiq al xumaari ak alxaafiz abdullah ibnu muhammad ibnu siddiq al xumaari radiallahu anhuma loolu la ñu saxal amma سيدي محمد آه، آه، يحيى بن عبد الكبير الكتاني رحمه الله مم آه، رضي الله عنه مم جيمنا جيمنا فخه بو ووتال كو لاي وايا على كل حال بو خوله داغي خامني ناخ مو دا رافيت نجورت دي رافيت نجورت في فخر رسول فارس موم رافيت نجورت جي مو رافيت نجورت موتاخ مي بو خوله دغ دغ ديغي خامني رك ان رياليتي كوك اكزيستي وول باسكو ديجا ات يي ني واخ ني نيون لا ñar ñoñu dundo مو موري boo ko xoolee da ngay gis à peu près ay deux cent années la ñuy dund te loolu dafa tumranke euh, euh, euh, boole kook le que kenn xamu leen kurul Mouhamed Saleh yi moom rek moo leen xam moo solo ci ñoom ba pare wax ne ñoom dañoo ijaazal dañoo def ijaazatal ahlil ma léegi nag ñu ñenn ñi bokk moom jamono sukkandikoo ci ñoom di solowee ci kooku en réalité kooku xamuñu ko existé wul loolu nag yu mel noonu moo tax ñuy toppatoo ana moom mooy. te te loolu attention li gën a yéeme mooy ñu bari ci ci ci ci ci ci ci ci saalixoona yi ci nit ñu sell ñi dañuy solowee seen càllale ci Muhammad Salih al-Fulani c'est vrai comme ni nga xamante ne dinañ ko gis ci biir bu nan wa araduha an haadihi al maani ci ci ci ci ci bunt bi ci dinañ dinañ dinañ ko gis insha allahu taala ci ci ci jeexitalu buntu bi nga xamantene euh mom lañu nek wa wa aradu fi hadhihi al azmani an i'tibar hadhihi al maani wala di dinañ ko gis inshallah euh donc lolu c'est vrai mais euh manam dañ ko wax pour pour préciser rek ne problème la manam ndax bo xolé euh ku melni imam sayidi muhammad an nazifi radiyallahu anhu Euh, borom yàqutatul farida mooy borom duratul xarida masalan moom boo xoolee euh, isnaadam di nga gis ci saxeexul buxaari saxeex muslim ak bu muwatta yooyu subhaanallah da nga gis ne caalaleem ci waajooju la jaar ci Muhammad ibn Sina cetera mu jëlee ci alwalati en réalité ñaar ñooñu existé wuñ kon caalaleeg bi dafa am dog-dog gu mag ci nekk ci wàllu googu donte am na ci yeneen mais boo xoolee daal maanaam ñoom ñoom <laughs> da ngay gis seen caalale ci ñooñu lay jaar euh, en réalité ñooñu existé wuñu parce que lool nak la manam buñu ñu la réeree ci jëm dañuy bàyyi dañuy xamné mënu mënuñoo sukkandiko ci say wax deug la rak jamono ji li li amon solo rak comme li nga xamantene mom lañu wax léegi ne wa taraku fi hadhihi al azmani ana itibaari hadhihi al maani wa li usraha ma kawni zal murari saara baqa salsalatil isnaadi comme li nga xamantene non lañ koy gisee insha allah léegi léegi kon dañoo bàyyi di solowee ci koo xam ne dañ koo réere kon dañoo réere jëmm ji jëmm ji ci bopp lañ xamul dégg nga boo ne euh, ah, xaw ma nan daal di indi benn turu nit euh, koo xam ne kenn xamu ko mais kan mooy majhulul ayni majhulul ayni en fait mooy moom lay wax mu ne maarawaa maa moom mooy koo xamante ne maarawaa solowul anhu di jëlee ci moom si waa kudul shaxsin benn nit waa maanaam benn nit kese maanaam benn nit kese kese kese kese moom moo solowee ci moom kooku moom la ñuy wax majhul ayni comme ku mel ni comme niñ la jox jox exemple sànq dégg nga wajarxan te ak jam ma xawaa amewu ko manam amul kenn ku ko jam kenn rek solo ci mom ndax mom moko xam keneen kenn jamuko manam kenn sédewul ci mom ak ñak ak njubadi euh, kon bu boba li nga xamantene mom lañu wax borom xam dañ ni wax joju kenn du japp ay waxam waaw Euh, léegi nag boobaa laaj bi day daal di jëw booy kon léegi su fekkente ne damaa bëgg mu nekk koo xamante ne xam nañu ko dañ naa la boobaa il faut que ñaari nit soloo ko jële ci moom maanaam il faut que lu mu bon bon ñaari nit di toxalee ci moom wala ko ëpp parce que su fekkente ne ñaari nit soloo nañ ci moom dañuy xam ne kon ah kooku effectivement ku existe la parce que benn nit rek waa jële ci yow kooku yow rek yaa ko xam yow kese kese kese yaa xam individu bi loolu tey na xel léegi il faut que ñu seet ba xam ñeneen xam nañ ko bu fekkente ne am na ñeneen ñu ko xam rek boobaa dañ daal di euh, dañ koy daal di mën a nangu loolu kon moom mooy wax ji nga xamante ne moom mooy ji gën a siiw te moom mooy gi nga xamante ne moom mooy gi gën a am na nag ñoo xamante ne dañ koy nangu ci lu parce que ñoom nga xamante ne moom lañ wax comme imam Abu Hanifa rahimahullah lu wax ji ñu toxalee ci moom manam guñ ko askanale wala wax juñ ko askanale gis nga siratu lan la it jëfandikoo siratu ban jazme dedet siratu tamrid la laa euh kon euh mom manam comme wax gi nga xamne mom lañu askanale imam Abu Hanifa rahimahullah ne mom loolu la jàpp manam que ni de toute façon ki solo hadith bi mom lenn rek lañ chartal ci mom manam euh moy l'islam maanaam mu nekk jullit parce que en fait ñoom d'ailleurs xanafi yu njëkk yi rahmatullah alayhim loolu lañ daan jàpp en fait pour ñoom nit ki pour ñu euh, attester waxam témoigner ko d'accord ci ay mbir maanaam wala seedeem tamit du ñu seet ci moom lu dul ndax jullit la wala du jullit maanaam yeneen euh, charte yi ngay dégg ci aadaala yooyu duñ ko seet parce que dañ jàpp ne jullit de manière générale noonu lay mel maanaam jullit feek xamuloo ni kii maanduwul da ngay jàpp ne daa maandu ndax cosaan si jullit mooy day maandu ñoom lool lañ daan jàpp loolu lañ daan wax mais soo xoolee ci xanafi euh, yu mujj yi rahmatullah dañu bàyyi affaire boobu parce que dañ gis ne jamono dafa yàqu loolu boo ko ba boo ko dee def dañ lay nax ba tous les jours ñu nax la yàlla boo ko def ci biir wolof yi ah kooku nag moom euh, li ngay risqué rafet xam nga parce que jamono ji loolu moo am maanaam yow jamono ji ki naxul moo lay jaaxal ki la jéemu te nax moo lay jaaxal mais kilay jéem a nax te nax la kooku en fait mu loolu mooy li normal léegi xam nga te loolu ni ma ko seetloo noonu nga ko seetloo noonu la ko keneen seetloo mooy ne eh, eh, ci wolof yi moom ki lay ki la naxul moom maanaam ci sénégalais yi ki naxul moom moo lay jaaxal mais ki la nax loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a jaadu ci li am léegi <laughs> euh, euh, léegi nag kon loolu moom mooy kon loolu mooy euh, euh, wax joo xamante ne dañ maanaam noonu la ñu askanal imam Abu Hanifa rahimahullah xanafiya rahmatullah bu njëkk ba loolu lañ doon wax mais sauf que ñu mujj ñi gis nga biñ ñëwee xanafiya yu mujj yi rahmatullah dañ ne non attendez loolu bi ko ñoom imam Abu Hanifa rahimahullah ñu njëkk ñi suñu borom xox yu njëkk yi rahmatullah di wax dafa fekk ne lan jamono yàqoogul woon léegi nga xam ne jamono dafa yàqu ñu sukkandikoo ci yooyu seede yooyu pour di teg pen ay nit pour di nangu ay yenn information et cetera euh, kon loolu moom mooy euh, wax ju njëkk ñi am na am ma euh, imam moom te imam as-Sakhawi tam loolu la wax maanaam mooy ne képp koo xamante ne ñoom dañ ne euh, képp koo xamante ne dafa maandu ku maandu bu solowee ci benn nit loolu day tegtale ne moom dafa seede ni kooku maandu na bu boobaa day tegtale ni kon maandu teg waa jooju noonu rek day daal di tax ñu mën a d' accord ci que ni mbir mi kat kon waa ji nekkatul ku ñu réere parce que ku maandu koo xam te ne xam nañ ne du toxale lu dul ci ku maandu seede na ni kii dafa maandu waaye loolu en fait da ngay gis ne maandute googu mooy mooy moo moo problématique parce que xoolal comme ko mel ne Mouhamed Salah Alfulaani bi ñu wax sànq rahimahullah imam la borom xam-xam la imam la ànd ak loolu le fait que mu crée par exemple koku motax tax am na ñoo xamne comme d'ailleurs Shawkaani shawkani rahmalahu amana lool mom motax solo wul ci moom albatta maanaam benn yoon wul ci mom dal dal amana lool mom moy sirru bi tax amana ah seulement do fekk na jamono yu mujjii sever se manam sévère nonu ci walu xadis yi jaru ko beneen mbir mi mooy ne Euh, euh, euh, li alxaafis ibn abdul bar raximahullah waxoon te ku mel ni imam ibnul jawzi ñeen raxmatullah alayhi az jàppale woon ko effectivement mooy ne boroom xam-xam yi kuy yëngatu ci xam-xam dañuy jàpp ne ku maando la ba keroog lan ñuy gis ne en réalité lu ko dajj voilà kii par exemple dañu mënoon nañ ko seedeelu maando te ba keroog ñu gis lu ko dajj bon donc loolu du def exception ci problème bi nga xamantene mom manam ci question bi nga xamantene mom moom nek mais ala kul hal li mëna wax moy commandu commandu euh bu fekkente dafa sédel nit solo ci nit euh, lolu ñom dañ japp ne kon dafa mandu lolu mom moy wax ku melni ni imam an-Nawawi rahimahullah imam as-Sakhawi rahimahullah lolu ko japp d'ailleurs imam an-Nawawi rahimahullah dafa japp ne ñi nga xamne ñom ñoo xootal masal yépp ñom lolu lañu la Euh, niki noonu maanaam léegi euh, al imam ibnu xuzayma moom rahmahullah li mu jàpp mooy ne euh, bu ñu réeree nit maanaam ja maanaam jaxalatul maanaam réeréeg jëmm nit day yëkkatiku su fekkente ne kenn ku siiw ku ñu xam dafa soloowee ci moom te loolu tamit maanaam moom la al imam ibnu Hibbaan nga xam ne taalibe ibnu Xuzayma la rahmallah comme ni ñu ko gise woon tamit loolu mooy li nga xamante ne moom la maanaam moom la jàpp loolu mooy li li mu li mu jàpp loolu kon wax yi yëpp boo leen xoolee mooy waxu imam yiñ toxale ci xanafiya yi imam an-Nawawi wax ko dëgëral ko ibnu Xuzayma Ibn Hibban imam saxaaw yi jàppale leen ci yooyu rahmatullah alayhi soo seetloo wax yi yëpp da gis day tourner autour de eh, dani nit daal bu xësee ba nekk jullit su kenn ku maandu solowee ci moom wala bokk mu nekk ku siiw ku soloo ci moom ku ñu xam ci xam-xam et te mu siiw te bari ñu et cetera dañuy daal di loolu day tegtale ne kon kooku ku ñu xam la maanaam dootul nekkati koo xam ne ku ñu réere la kon loolu mooy ñaareelu wax ji wax ju njëkk ji mooy lan mooy ne dañ koy réeri su fekkente ne kenn nit rekk ko solo ak kooku ku mën a doon fii keneen solowul ci moom maanaam au moins mu nekk ñaar loolu mooy wax ju njëkk ji ñaareel bi mooy bii ñu mujjee wax mooy bu ko kenn ku maandu walla ku siiw solowee hein bu dee waajooju jullit la rek loolu day tegtale ne maanaam kon akuk ñàkk akuk réerim yëkkatiku na maanaam xam nañu jëmm ji ndax diw sàngam soloo na ci moom te diw moom ko maandu la le fait que mu soloo ci moom tamit daf ko seedal ak maandu la loolu kon moom mooy loolu mooy wax yi nga xamante ne ñoom ñoo ci am Euh, léegi kon loolu mooy ñaareelu ñaareelu wax bi léegi mu ne saalisuha kon tuddul ñaareel bi mais tudd nañ ko ñetteelu wax ji mooy inkaana su fekkete ne nekk na man ki nga xamante ne anhu dafa ki jëlee ci moom infarat dafa wéeto maanaam ki jëlee ci ki nga xamante ne moom mooy ah majhul bi maanaam majhulul ayn bi koo ki jëlee ci moom infarat dafa wéeto ci soloowee ci moom lam yar wi te du soloowee illa lu dul li la odoole ñeel ñamaanu maanaam mooy di jëlee ca ñamaanu illa lil oduli maanaam anil oduli maanaam moom bu fekkente ne du soloowee lulul ci ñimaanu laa yu raddu deeful dellu deeful delloo maanaam deeful delloo xadisam maanaam mooy ñetteelu wax ji kon mooy lan mooy dañuy seet ana kan moo solowee ci moom bu dee ki soloo ci moom dafa fekk ne kooku moom nit la koo xam ne du solowee lu dul di jëlee ci ñumaanu bu boobaa su solowee ci kooku nga xamante ne moom rek moo solowee ci moom dañuy xam ne kon kook kenn du delloo woo xam dañuy xam ne ne maanaam jaxaala gi nga xam ne mooy réeri gi ñu réeri jëmm ji day daal di deñ ba pare dañuy daal di xam ne kon kooku dafa maandu moo tax kii nga xam ne du soloowee lu dul ci ku maandu soloowee ci moom euh, ñooñu nag ñoom ñoom waxoon nañ leen mooy ñi nga xamante ne du ñu soloowee lu dul de manière générale ci ku maandu ñoom ñooy إمام مالك إمام أحمد إمام مالك بن أنس إمام أحمد بن حنبل إمام عبد الرحمن بن مهدي إمام عامر أبو عامر الشعبي إمام بقي بن مخلد حارز بن عثمان سليمان بن حرب شعبة بن الحجاج يحيى بن سعيد القطان Euh, Mansour ibn al-Mu'tamir Yahya ibn Abi Kathir rahmatullah alayhim Shu'ba nag moom moo ci gën a siiw te moo ci gën a sévère te moom lañ ko gën a xamee moo tax Shu'ba moom càllale boo gis mu nekk rek moom dogul ci ne tabaarakallahu ko maandu la moo ca nekk imaamu Malik tamit noonu la mel euh, ñi solowee ci moom pas maanaam ñi mu solowee ci ñoom maanaam càllale gi moom ku mu soloo ci moom paa ñi solowee ci ñoom mais ki soloo ci moom ki mu solowee moom ci moom maanaam moom sëriñam pas taalibim moom sëriñam voilà boo xoolee tey boo jëlee benn càllale bu wér ba ci ba li ci des bu la neexee nga bañ koo xoolaat ndax wér na <laughs> voilà par exemple imam Malik noonu la mel tam rahimahullah càllale boo solo ba ci imam Malik lépp wér li ci des jarul nga ko xool ndax wér na et cetera ñii noonu lañ mel maanaam ñii ñu tudd euh, loolu mooy de général Euh, am nañ ño xamantene comme imam ahmad rahimahullah nga xam dana solo solowee ci ñu wër mais day solowee ñi mu solo ñep dañuy wër serigne bi mais sauf que ñi ci ñi ci dess ñoo dul wër maanaam ñi ci suuf lool moy de manière générale rarement lañu solo ci ku wérul <coughs> kon lool moy ñette ñaare ñette ñetteelu wax ji kon ñette ñetteelu wax bi ci masal wax ju ñëk ci kon moy ne duñ ko nangu ñaaral bi moy bu ko kenn ku solo solowee loolu loolu da daañ koy nangu ñetteel bi mooy bu fekkente ne ki solowee ci moom dafa maandu maanaam te dafa nekk koo xam te du solowee lu dul ci ku maandu ku mel ne ñoom imam malik ñoom yaxya ibnu ma euh, ibnu saad al qattaan ak euh, abdurahman ibnu mahdi ñoom imam ahmad ibnu hanbal rahmatullah alayhim ak ñeneen euh, ñeenteelu wax bi raabiuha ñeenteelu wax bi mooy yuqbalu dañuy nangu ki nga xam ne dañoo réeri kon jëmm mooy majhul ayn in zakkaahu su fekkente ne setal na ko maanaam maandul seede na ak maandu teem xabrun ak fóore maanaam fóore bu fekkente ne daf ko dafa seede maanaam ki nga xam ne fóore mooy maanaam imaam boo xam te ne ci eh, imaamu jarxoo taadil la waxoon nañ ne la ci buntu eh, bi nga xam te mooy bii di ñëw incha allah mara taadil wa tajrih dinañ wax fóori bi nga xamante ne moom mooy fóori boobu nu mu mel ak lan mooy caractéristique am bañ mën a wax ne kii am na droit seede ne kii maandu na wala déet waaye fóori yooyu daal kenn ci ñoom bu fekkente ne seede na ko comme ñoom imam an-Nasa'i ñoom imam al-Bukhari Yahya ibn Ma'in Yahya ibn Sa'id al-Qattan Ali ibn al-Madini imam Ahmad ibn Hanbal Shu'bah ibn al-Hajjaj Euh, et cetera ñooñu euh, imam at-Tirmizi euh, imam Ibn Hibban Ibn Khuzayma rahmatullah alayhim imam ad-Darqutni rahmatullah al jami ñooñu bu ñu seedee ne kii maandu na ñu ne maanaam fóore yooyu bu ci fekkente ne am na kenn ci ñoom ku seede ne waa ma setal na waa ji rek loolu bu boobaa dañuy daal di jàpp ne kon effectivement kon waaja a set na loolu mooy ñeenteelu wax ji nga wax ji moom ku ko wax. mu ne waza te gis nga ji wax mooy ñeenteelu wax ji fii nuxbatin ci nuxba mooy téere boobu bu mag boobu nga xam ne moom mooy pourtant téere su ndaw la waaye bu mag la maanaam su ndaw la ci taay waaye bu mag la ci njariñ ak lam ca dajale mooy nuxbatul fikar bu alxaafiz ibnu xajar alayhi ridwanul bar wax manam kon mom lolu mom moko solo mom la gis mune ra'ahu mom la gis manam mom moy gis-gisam wa za fi nukhbatin ra'ahu moo euh cheikh ahmed shakir rahimahullah daan ne ay hadha ra'yu al-hafiz shihab al-din ahmed ibn hajar fi nukhba manam moy manam lim ci djublu moy li mom moy gis-gisu shihab al-din ahmed ibn hajar al-hafiz ahmed ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullah taala mom la gis fan ci nuxbatal euh, ci nukhbatul fikar ak euh, euh kon li mom moy li nga xamantene mom moy gis-gisam legi mu ne ngani ndax yi rek ka ci am mu ne dedet amna amna amna juromel wax ngani acca ma ngi lay deglu mu ne lax nga mën ne xaamisu xaa juróomeelu wax bi ci li nga xamante ne moom mooy wax yii wërwërloo ci majhulul ayni ndax dañu nangu waxam wala duñ ko nangu nga ne waaw mu ne inkaana bu fekkente ne dafa nekk moom majhulul ayni mim man di bokk ci ñi nga xamante ne xat dëgg-dëgg shuhir dañoo siiw maanaam nit la koo xamante ne dafa siiw ci biir nit ñi dëgg la kenn moo solowee ci moom mais moom ci biir nit ñi siiwee na ci waaye ci lan la siiwee maanaam ñeneen xam nañ ko moom daal dañ koo xamewul rek ci affaire xadiis yi moo tax ñu réere ko mais boo demee ci biir yeneen nit ñi ñoom xam nañ ko te xame nañ ko mimma ci loo xamante ne siwaal ilmi bokkut ak xam-xam maanaam dañ koo xamee ay jikko yoo xamante ne bokkut ak xam-xam parce que moom en fait dafa fekk nit la koo xam ne xamewuñ ko xam-xam rek moo tax buñ ko xamee xam-xam bu ñu waxee bu ñu waxee bu solowee xadis bi dañ koy daal di mën a nangu ndax dañuy xam ne moom xam nañ ko kon en réalité du nekk ñu réere mais la fait que xamuñu ko ci biir milieu borom xam-xam yi loolu moo tax ñu réere ko mais ci yeneen nit ñi xamee nañ ko yeneen i jikko yu rafet yaa mu ne kanaj datin kem ak njàmbaare maanaam dañ ko xam ne waa ji daal jàmbaar la tabaarakallahu moom ah waaw ah, Euh, waaw comme comme loolu noonu comme ni nga xamante ne am euh, euh, Amr ibn Mahdi moom dafa siiwee dafa siiwoon rahimahullah ci njàmbaare kooku par exemple dañuy xam nekkoon kii xam nañ ko voilà kii xam nañ ko nit la ku ñu xam mu ne wa bir akuk mbaax koo xamante ne dañ koo xam ne saan ku baax la ñu xamee ko loolu kon bu boobaa day daal di nekk koo xamante ne ah comme ku mel ne euh, Malik ibnu Dinar rahimahullah xamee gi ñu ko xamee dëddu àdduna par exemple waaw comme par exemple loolu am na ñoo xamante ne ñoom dañ leen a xamee dañoo siiw ci ci benn mbir maanaam ne kii ka daa siiwee nangam euh, comme ku mel ne Abu Yazid al Bistami par exemple radiyallahu anhu niñ ko xamee ci ci sellte ci tasawuf ci maandute ci ci ci ci ci sell par exemple ñooñu te pourtant Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu xam nañ ko ci wàllu googu mais xamuñu ko par exemple ci hadith yi voilà milieu xam-xam yi zahir yi wuñ ko ci mais bu fekkente ne yeneen maanaam mbir mi xame nañ ko ci bu baax a baax par exemple am na ñoo xam te noonu lañ mel dañuy leen di xame ni seen waaj mu ne nag ku mel noonu su solowee ak xadis am kenn nit rek solowee ci moom boobaa dañ koy daal di mën a nangu loolu mooy juróomeelu wax ji euh, kon euh, wala boog nit ki ñu xamee ko par exemple lu demee nekkee euh, ay teggin ne ku bari teggin la woon et cetera ba mu siiwi ci voilà loolu moom kon wax ju melni al hafiz ibn abd al bar rahimahullah wax ju melni la wax d'ailleurs motax tax mu ne bu fekkete nag ci xam-xam lañ ko xamé xam nga ci milieu xam-xam yeeg yoy koku day daal nek ko xamé tout simplement manam ak maandu tam dañ koy daal di gëna mëna cédé dañ koy daal di mëna taxawal ba kërëm ñu gis ci mom luy wane contraire bi tout simplement kon juróomi wax yi mom moy li nga xamantene ñom ñoy wax yi nga xamantene mom la am en fait am na juróom-benneel te loolu am na euh, yenn ci boroom xam-xam xadis yi yu ko wax waaye lu ëpp ci fuqaha yi wala lu ci bari ci ñoom moom maanaam fuqaha yi ñoom ñëpp sax loolu lañu wax mooy dañ ni majhul ayni su dee saxaaba la su dee saxaaba te loolu en fait wax la joo xam te ne daanaka jar woon préciser parce que ñooñu taxul woon ñuy wax ndax euh, moo tax al xaafis as-Suyuti rahimahullah préciser wu ko moo tax waxu ko parce que saxaaba moom en fait ñu réere ko ñu bañ koo réere mooy am képp euh, léegi kon kooku juróomi wax yooyu moom mooy li aju ci kan majhulul ayni léegi mu am ku ñuy wax majhulul ah adala kooku moom mooy ñaareelu xeet bi mooy majhulul adala mu ne wasaalisu ñetteel bi moom ñetteelu wax ci majhul adala te al asax mooy bi gën a wér moo tax tudd ko tuddul yeneen yi ah kon bu njëkk bi nga ne waaw kon bu njëkk bi la la mu ne la bu njëkk bi mooy majhulul adala koo xam ne majhulul adala mooy koo xam ne xam nañu ko mais sauf que dañoo xamul ba xam ku maandu la wala déet yaa ngi dégg mooy koo xamante ne xamuñu maanu teem wala déet mu ne la ñetteelu wax bi mooy lay sa yuqbalu te mooy bi gën a wér mu ne deefu nangu man koo xam ne man la maanaam da gis ci yenn nu sax yi wala ci jàngkat bi mais en fait man la mooy koo xam ne man ismu mawsul la koo xam ne lan baatinan biiram waa zahiran ak bitim yëpp yu jaxalu dañ koo réere maanaam xam nañu kan la mais xamuñu munuñu laa wax ay jikkoom munuñu laa wax ay meloom xamuñu maanaam biiram bitim yëpp dañ ko dafa nekk koo xamante ne dañoo askane la ci moom ak réer euh, kooku moom mooy majhulul adala maanaam xamuñu ak maaruteem liñ mën a xam daal mooy par exemple gis nañ ko muy ñëw di conférence gis nañ ko kii et cetera wala muy kii mais xamuñu ba xam li muy wax mën nañ ko wool wala déet xam nañ jëmm ji ñu bari solo nañ ci mom par exemple mais xamuñu munu kenn xamul ci mom lu mu mëna sédé ba tax né mu mëna wax né ki maandu na wala maanduwul kooku mom moy majhulul adala euh, kon koku wax ju jëk ji nak moy dañ koy nangu ci luñu doyal euh ibnul wax nag rahimahullah moom daf koo askanale ci ku mel ni imam al-Bazzar imam ad-Darqutni ak imam ibnu Hibbaan rahmatullahi alayhim ñaareelu wax ji kon lool mooy wax njëkk ji mooy dañ koy nangu ci luñ joyal ñaareelu wax ji mooy ne su fekkente ne ñaar ñi solowee ci moom duñu soloo lu dul ci ku bu boobaa dañuy jàpp ne kon kooku maandu na amma su fekkente ne nag maanduwul bu boobaa maanaam bu fekkente ne ñaar ñooñu dañuy soloowee maanaam kon bu boobaa il faut ñu xool est-ce que ñaar ñi soloo ci moom ba tax ñu yëkkati jaxaalatul ayni maanaam réere gi ñu réere jëmm ji léegi amatul léegi xam nañ jëmm ji ndax ñaari nit soloo nañ ci moom lu mu bon bon mais sauf que dañoo xamul ndax waa ji maandu na wala déet ñu xool ñoom ñu ne maanaam boroom wax ñaareel wax ji ñoom dañ ne dañuy xool kon est-ce que kii nga xamante ne moom mooy soloo ci moom ndax maanaam ñaar ñu solo ci ñoom est-ce que ñaar lañ ñoo xamante ne ñoom du ñu solo lu dul ci kumaadu bu fekkente ne ñoom ñaar noonu lañ mel ñu ne waaw kon nag bu boobaa ma majhulul adaala gi day daal di yëkkatiku boobaa dañuy daal di nangu lan dañuy daal di nangu ay waxam kon loolu mooy ñaareelu wax ji ñettelu wax ji moy li nga xamanteni mom la li ëpp ci borom xam-xam yi wax rahmatullah alayhim comme imam ibn salah euh ibn al mawaq mom jàpp na ne mu xaqiqoo ne ñu xóotal masala bi loolu lañ wax ku melni abu hatim ar razi ak imam al khatib al baghdadi rahmatullah alayhim ak ñeneen ñom boba il faut maanaam du ñu nangu waxu nit koku ludul ndax manam ndax lan ndax dafa fekk ne nit la ko xamantene euh maanaam euh, xamuñu ko maanaam kenn ci séedewul ci moom ak maandute ak wala ak kàccoore kenn séedewul ci moom dara boobaa du nekk koo xam te ne kooku ku ñuy nangu la kon kooku moom mooy majhulul adala kon majhulul ni moom jëmm ji lañ réere mooy koo xam ne kenn nit rek a solo ci moom keneen solowul ci moom majhulul aynu googu jaxalatul aynu gi réere gi ñu réer jëmm ji day yëkkati ko su fekkente ne am na keneen ku ñëw solo ci moom muy ñaari nit léegi mu des kon mu daal di nekk kook bu nag léegi majhulul adaala lay daal di doon léegi majhulul adaala nag bu dee ñaari nit ñoo solo ci moom wala lu ko mais xamuñu lan ci moom xamuñu dara ci moom xamuñu kenn ci fóore yi nga xam ne ñoom ñooy borom ko xam jarxoo taadil yi ñoom munu ci moom ak maandute niki noonu jamuñu ko boobaa dañuy daal di nekk koo xam te ne dañoo réere lan adala gi maanaam ak maanduteem la ñu réere bu boobaa dañuy daal di euh, euh, boobaa nag ñetti wax yi ñoom ñooy yi nga xamante ne ñoom ñoo ci am bu njëkk bi mooy dañ koy delloo euh, ci luñ joyal ñaareel bi maanaam maa bu njëkk bi mooy dañ koy nangu ci luñ joyal ñaar ña mooy bu njëkk bi ñaareelu wax ñi mooy danañ ko nangu su fekkente ne ñaar ñi solowee ci moom dañoo nekk ay nit ñoo xamante ne ñoom duñ solo loolu ci ku maandu ñetteelu wax ji moom mooy bii nga xamante ne moom la imam as-Suyuti wax rahimahullah mooy d'autre façon mooy mooy mooy duñ ko duñ ko nangu mooy duñ ko nangu duñ ko nangu parce que kenn parce que séede wuñ ci moom ak maandute li sax nag duñ ko duñ ko nangu en fait mooy li ñu waxoon ci ne même bu fekkente ne nit ki dañ koo xamee ci muy solo euh, ci lu dul ci ku même bu fekkente ne nit nit nit nit nit ki nit ki noonu la mel loolu tamit maanaam du tax ñu mën a euh, euh, euh, maanaam wóorul daal maanaam wóorul maanaam du tax ñu mën a jël ay maanaam maanaam te ñoom maanaam loolu daal du tax ñu maandat comme niñ ko gisoon walay sa fil azhari taadilan ida anhu rawal adlu walaw xussa bi sax biñ biñ tollee ci bayit boobu gisoon nañ ko maanaam mooy ki nga xamante ne moom mooy kumaandu même bu fekkente ne dañ koo xamee ci muy solowee lu dul ci ñu maandu ñu maandu kese bu solowee ci nit tegtewu léwul ne dafa maandu loolu moom moo tax duñ ko nangu loolu mooy ñetteelu wax ji kon mooy bi nga xam ne moom la borom xoxo bi di gën a saxal te moom lañ gën a jëfandikoo rahmatullahi alayhim euh, léegi kon ñaareelu groupe baa ngoog majhulul ni dem na majhulul adala dem na léegi mu des majhulul xaal kooku moom moom la ñuy wax tamit almastuur maanaam mooy ko xam ne euh, en fait euh, euh, dañ ko réeri maanaam zahiram daal li feeñ ci moom daal mooy ku maandu la mais en réalité dañ koo réeri loolu nag dinañ la wax lan la Euh, moom majhulul xaal mooy xaalam maanaam mooy nu mu mel dëgg dëgg dëgg dëgg loolu la ñu réere xam nañ ko ci zahir léegi xam nañ ko zahiran xam nañ ko mais baatin bi la réere euh, euh, te loolu moom la ñuy wax majhulul xaal kook la ñuy wax majhulul xaal dañ koy wax mastuur comme niñ ko waxee ki ko ko njëkk tuddee nag mooy imam al-Baghawi rahimahullah après ginnaaw imam ar-Rafi'i ak Ah, eh, ñëw tuddee ko ko après imam an-Nawawi rahmatullah ñoom la ñuy wax ash-shaykhaani ñaari sëriñ ci mazhab Shaafi'i rahmatullah alayhim ñoom ñooy ñaari sëriñ yi ar-Raafi'i ak an-Nawawi rahmatullahi alayhima ñoom ñaar bu ñu dëppoowee ci benn wax xoolal subhaanallah ñoom ñaar suñu dëppoowee ci benn wax ci mazhab Shaafi'i même bu imam ash-Shaafi'i waxee contraire bi wax seen ñaar seen ñaari wax la ñuy la ñuy jël rahmatullah alayhim gis wax loolu moom mooy eh, <laughs> eh, ñoom ñaar ñooy ñoom moo tax ñoom ñoo ñaari sëriñ yi ci mazhab Shafi'i rahmatullah alayh léegi cependant bu dee euh, dëppoowuñ ci wax waxu imam Ash-Shafi'i mooy ëpp doole seen wax mais ñoom ñaar buñ dëppoowoo ci wax rahmatullah alayhima waxu seen wax mooy ëpp doole waxu imam Ash-Shafi'i ci jëmmi boppam rahimahullah euh, léegi kon mastuur mu ne waaw mu ne wa fil asaxi ci li gën a wér nag ci wax yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci waajooju ngay xam ne moom la ñuy wax mastuur maanaam mooy majhulul xaal mooy lan mooy yuqbalu def na nangu al mastuur kooku noonu nga xam ne moom mastuur la ah maanaam def na nangu ay information yi muy joxe def na nangu xadisam fii nga ni mooy kan mooy mastuur mu ne la nit la koo xamante ne fii zahirihi ci zahiram nga ne mu ne la adlun dafa mu ne waaye wa baatinun baatin moom xafi dafa nëbbu ji dañoo tase ci gàmmu gi ñëw ci gàmmu gi sol garam bu sol kii yor kurusam ñu gis ko mu yor xaal boo xam ne daal gis nañ ni kii toppkatu sunna la loolu mooy xaal bi ci biti voilà nga gis ko mm, muy doxale na xam bu heure julli jotee nga gis ko mu ne yaa ah, gars yi dañ julli julli jot na ñu julli ah nga dégg ko tamit muy wax nga xam ne kii ah kii nuru na ne kat ku ku baax la ni muy waxee et cetera ah, ni ki noonu mais tout le temps ci événement yooyu rek la ñuy tase en réalité ñun xamuñu ko ci biir këram xamuñu ko ci biir mbokkam yi xamuñu xaalam yu bari lu bari maanaam loo yooyu daf ñu riir xamuñu ban voilà xamuñu tamit passé xamuñu histoire am xamuñu nan la ko ay maanaam fi mu dëkk ñoom ci seen bopp euh, ban réputation la fa am yëpp xamuñu ko ci kaw loolu mais dañuy tase ci gàmm yi saa su ne muy wax ay kii di am na nag ñoo xam ne moom da nga leen di gis rek xam ne ñii ay frimeur lañ moom ci biti nii la ñuy toog di wax ji mais ni ñuy waxee ak ni ñuy kiwee ngay comprendre ne lii ñii Ni dañuy déconné en fait lii du seen manam qui mom Kimum euh, parce que day tricher en gros tricher telolo, de façon ku mel non dang koy xam su yag nga xamé fo gissé genre tricheur ni frimer bon buñ frimer wul té dañuy tricher Ny tax ni ñuy comportement bi am yenn euh, tournure yi ñuy defal seen phrase yi euh, et puis ci yenn yu sew yi boo gisee rek da xam ne kii am na am na problème quoi non yaa yaa yaa yaa quelque chose voilà damay ragal ne dafa am problème bon te souvent boo leen waxtaanee lu yàgg di nga découvrir di nga découvrir ne effectivement waa ji li muy bëgg a wane nii en fait melul noonu ci réellement lool loolu mën naa ne mais nag am na ñoo xamante ne boo gisul loolu ci ñoom gisoo loolu ci ñoom zahiram mooy rafet na mais baatinam dañ koo réere kooku moom mooy majhulul xaal ah imam as-Suyuti rahimahullah daal ni kon li nga xamante ne moom mooy ah, lii nga xam ne moom mooy li gën a eh, eh, eh, wér mooy dañuy nangu dañuy nangu li nga xamante ne moom mooy waxam loolu kon mooy wax ji nga xamante ne moom la jàpp ne moom la gën a moom mooy li gën a wér ah, loolu nag li tax ñu jàpp ko mooy dañoo gis ne wax yi ñuy toxal xadiis yi information yi day tegu dafay aju rek ci rafet njort koo xam ne nag gis nañ zahiram rafet parce que baatin dafa nekk loo xam ne dafa xaw a jafe linjit waa ji nu mel dëgg dëgg dëgg dëgg réellement loolu dafa dafa compliqué waaw loolu moom moo tax bu dee ci information rek mën nañ ko nangu sauf ko nag ci seede bu boobaa juge bi moom mooy lijjitu mbir moomu voilà juge bi moom mooy li ñutu est-ce que kii ñu may seedaloo mat na seede ba pare waaw wala déet boobaa moom mooy def investigation yi mais su fekkee ne ay information la yu ñuy nangu yooyu wax yu ñuy jël ba xam wax ji dëgër na wala mënees na ko au moins sukkandikoo surtout bu fekkente ne enjeu bi taxu koo rëy boobaa mën nañ ko jël ci koo xam ne vraiment mastour la ah koo xam ne daal mastour la Euh, am na ñu ne ça dépend su fekkente ne loolu mooy kon wax ju njëkk ji mooy loolu moom la wax ne moom mooy bi gën a wér ah am na ñu ne su fekkente ne ki solowee ci moom maanaam dafa am ci seen biir ñi soloo ci waajooju koo xamante ne moom au moins ki we ci manam au moins mom du solo lu dul ci ko mandu dañ koy nangu comme ni nga xamne non la jitu won woon ah, amna ñu ne en tout cas jamono yu jikki mënon nañ ko nangu waye jamono yu mujj mom kenn du ko nangu parce que yàqute dafa ko dafa tasaro te lool mom moy li xanaf yi lu ci upp ci ñom rahmatullah alayhi wax te lool mom moy tamit wax ji nga xamante ne moom mooy wax ji mata bay bàyyi xel moy jamono yu jikki ku mel nonu masturul hal dinañ nangu waxam mastuur mooy al mastuur mooy majhulul xaal mais jamono yu mujj yi moom defu ko nangu waaw defu ko nangu mais jamono yu njëkk yi nga xamante ne moom mooy jamono salafi yu ñu doon solo xadis yi par exemple ñooñu dinañ leen nangu kon boobaa te lii xam-xamu xadis la loolu moom moo tax mu ne wa fal asaxe kon yuqbalul mastuur dañuy nangu al mastuur voilà kooku loolu moom mooy ci jamono yu njëkk yi mais jamono yu mujj yi nga xam ne affaire yi dafa xaw a lëbëjoo nit ñi soppeeku et cetera nga xam ne ne gars yi dañuy gis waaju la kii ba nga wóolu koo ndekete trian la wala ndekete nangam la ndekete ndekete ndekete ndekete ndekete ñooñu kenn du mën a sukkandiku ci seeni ci seeni ay wax et puis enjeu yi day bari léeg-léeg nit ki mën na ñëw wax la yu bare bari yoo xamante ne euh, daal mooy loolu daal ah, am na tamit ñoo xamante ne wax nañ ne kenn du ko nangu ci lu ñu joyal li ëpp nag ci borom xam-xam rahmatullah alayhi loolu la wax kon imam as-Suyuti rahmatullah dafa wax ni lii mooy li gën a wér moom li mu jàpp maanaam ci jamono yu njëkk yi moo tax ñu wax xadis maanaam dañ koy nangu nangu moom euh, mais li nga xamante ne mooy li ëpp ci borom xam-xam rahmatullah mooy dañ ne daal comme maandu teem daal xamuñu ko ba tey saxagul kooku mook majhulul adala ñoo yam képp kon bu boobaa moom kenn du ko nangu euh, alxaafis ibnu xajar nag rahimahullahu taala moom ci nuxbatul fikar moom dafa ni riwaayatul mastuur ak ku mel ni moom maanaam koo xam te ne majhulul xaal la euh, nga xamante ne maanaam ñoom dañuy taxaw ci seeni mbir moom loolu la wax moom dañ kenn du ko nangu mais kenn du ko delloo wax jooju tam wax ju mata a bàyyi xel waxu hafiz ibn hajar bi rahmaallah amaan na mooy bi gën a dëgër sax ci luñ joyal mooy kenn du nangu waxam mais kenn du ko delloo dañuy toog ba keroog ñuy am preuve ci wane ni kii maandu na wala maanduwul voilà mais amaan na tamit li nga xam ne wax ji nga xamante ne mooy ñu njëkk ñi jamono yu njëkk ya bu fekkente ne nit ki zahiram rafet na dañuy nangoo xam ba keroog ñuy gis baatinam mu nekk loo xamante ne baatin bu doy waar la waaye fekk xamuñu ci baatinam lu doy waar mais zahir bi moom doy nañu ñu nangoo xam ñun ci jamono yu njëkk yi loolu amaan na tamit wax la joo xam ne ju dëgër la comme ni nga xam ne la ko alxaafis as-Suyuti raximahullahu taala waxe euh, léegi mu dem ci ñeenteel bi mooy bi mu jeex mooy mu ne waman képp koo xam ne arif naa xam nañ wala araf naa xam nañ ay na xoo jëmmam waxaaloo ak xaalam léegi moom kooku moom mooy majhulul ismu wan nasab moom moom xam nañu jëmm ci xam nañ ni Moodu la tudd la xam nañu ne maanaam euh, ñaari nit au moins xam nañ ko bu baax solo nañ ci moom kooku xam nañ jëmm ji xam nañu xaalam tamit mooy xam nañ ni daal waa ji daal euh, place sàngam lay liggéeyee fa la nekk te ku fa maanu la ku ñu respecté la ku kii la euh, nit ñëpp lu baax rek la ñuy ci moom et cetera mais turam mais duunas mi waaye ak lañu la ñu réere wa nasabin ak askanam loolu mën na xew parce que buñ demee ba ay quelques années ay quelques années yoo xamante ne dafa dafa weesu wala yooyu mën na tax ñu réere jëm ñu réere tur bi ak jëmm ji ñu ñu réere boog tur bi ak askanam wala askan bi wala yooyu ma xam tur bi mais xamuñu santam xam nañ ne daal benn waay la boo xamante ne sekk la sant comme ñu wax noonu am na benn waay daal bu sant sekk boo xam ne nangam mais kon kooku xamuñu kan la xam nañu nag jëmm ji ndax euh, euh, euh, nit ñi solowee ci moom moo tax am nit ñi nga xam ne ñoom ñoo wax ne dégg nañ ci moom te xam nangoo nañ ci moom ñoom ñoo tax ñoo bari mais ba tax ñu xam nañ ni kooku existé na xam nañ jëmm ji xam nañ ni tamit ko maandu la ko kii la parce que benn am ndeysaan waaju sant sekk la ko baax la woon ñu ñu ñu seede ko ñu maandul loolu ñu seede ak maandu teem mais xamuñu kan la ne li xam daal li gën a màgg mooy sekk la sant wala parfois benn waay bu dëkk jolof waa ji daal ca jolof la dëkkoon waaye da daan faral di ñëw fii ci ndakaaru waaye kooku nangam nangam yooyu maanaam xam nañu kan la mais xamuñu maanaam euh, euh, euh, nga naan de waaw xaritu sëriñ diw la woon da daan ñëw ci sëriñ diw ak sëriñ diw ñoom ñëpp dañ ko dañ daan daan fréquenté dañ ko bëggoon ndeysaan waa ji seex waa ji ca jolof la daan jóge maanaam damaa xamatul tur bi dama ko jàpp maanaam ñooñu nag keneen tamit daal di wax loolu effectivement muy même waa ji ñu wax ay critères am ak ay caractères am wax histoire ak lam doon waxanteeg sëriñ diw yooyu noonu noonu ñu xam ne effectivement même nit ki la mais sauf que xamuñu turam xamuñu lan askanam boobaa mu ne mil naa dañuy jéng la ko ko maanaam dañuy jéng ci nangu li nga xamante ne moom mooy moom mooy waxam. Ah. maanaam di attewoo ay waxam lool moom la al imam al xatib al baghdadi rahimahullah taala wax ci kifaaya comme maanaam euh, ni ki noonu noonu la solowee ci maanaam euh, euh, loolu la ko solowee ci al qaadi abubakar al baqillani rahimahullah et parce que en fait ndax réeri tur wala meloor la réeri kese loolu du tax ma réeri askanu nit wala maam du tax ma réere ak maandu tem ndax tur bi rek la tur bi grawul xam nga bu ma réeree turu nit loolu yàqul dara dara dara ci ne nit ku baax la wala loolu manam tur bi rek la réere wala askanam kon loolu terewu ko baax li doon graw mooy ma léppam voilà wala ma réere ak maanuteem même bu ma xamee mais ak maanuteem wala ak mbaaxam kooku mooy problème mais bu fekkente ne tur bi rek laa réere wala askanam yooyu nu mu sant moo naa xam naa ne daal waa ji moodu la tudd dama fàtte santam ñoo ñëpp ñu ne xam nañ ñu moodu lañ ko xamee woon ñun daal Moodu lañ ko xame woon Moodu la ko lañ ko daan wax ah Moodu lañ ko daan wax yooyu wala benn waay la fii ndeysaan sunu waa ji lañ ko daan wax sunu waa ji ñëpp naan ko sunu waa ji en fait xam nga sunu waa ji du tur voilà yooyu mais yàqul mbaaxam yàqul mbaaxam dara wala benn wala gars yi daal gis ku mbaax ñun ñu koy tuddee borom baax cey borom baax ah gars yi naan borom baax borom ba borom baax baat boobu siiw mais xamatuñu tur bi. xamuñu tur bi xamuñu santam xamuñu fu mu dëkk maanaam mais daal xam nañu existence am kooku bu boobaa mu ne mil naa la dañuy jéng ci ay waxam loolu yàqut dara comme li nga xam te noonu lañ ko xame hmm? euh آه، الشيخ احمد شاكر آه، رحمه الله تعالى من اختلفوا في مجهول العين ليكون داي داني ان شاء الله من اختلفوا في مجهول العين هل تقبل روايته وهو الذي لم يروي عنه الا شخص واحد لان اقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين عن الراوي مانام آه، ووتي نانتي koo xam ne jëmm ji lañu réere ndax dañuy nangu riwaayaam wala déet euh, mooy kan mooy koo ki nga xamante ne kenn rek moo soloo ci moom ndax li gën a néew ci li yëkkati ñàkk xam ak nit maanaam mooy au moins ñaar ñoo xamante ne ñoom ñaar ñu siiw lañ ñu ñu xam lañ ñoom ñaar lañ déjà ñu ñu xam ñoom aussi ñoom ñu solowee ci benn ci kooku noonu boobaa dañuy xam ne kon jëmm ji xam nañ ko léegi réereetuñ ko فقال بعضهم باسكو خمغا ان فيت ا تاي امنا تور يو خامي تاي نيت نيب خامن لين تاي بوما ني ا امام النووي تاي فرزا رحمه الله مو ني النووي نيت نيب خامن ن النووي اسكو غيس نانكو لي اوب تي نون موسو نيغو صاح غيس تي غنت دوك لي اوب تي نون موسو نيغو صاح غيس لان تي غنت اندك لولو خم نانيو النووي رحمه الله خم نانكو بو باخ خم نانكو خم نانكو تاي مانام من نني خم نانكو خم كو خامتاني من نانيو تك jëmm dugal ci ay melox ay attributs yu bari yoo xamante ne dañ ko koy xamee ba tey ñu mënoon ko ñu mën ko représenté tey teg ko du dégg voilà mais euh, euh, bu fekkente ne nag kooku kenn rek a solo ci moom xamuñu ko en fait dégg nga fa qaala baaduhum tuqbalu mutlaqan am na ñu ne dañ koy nangu ci lu ñu joyal wa qaala axaruna am ñu ne laa tuqbalu mutlaqan def ko nangu ci lu ñu joyal wa qawlu saalisu tuqbalu ida kaana raawi anhu la yarwi illa an siqa ñetteelu wax ji mooy dañ koy nangu su fekkente ne ki solo ci moom du solo lu dul ci ku wóor war raabio tuqbalu ida gis nga boo xoole eh, moom eh, eh, ñetteelu maanaam ñaareelu wax ji hein manam wax ji nga xamne mom moy wax ji imam as-Suyuti wa rahimahullah moy la taqbalu mutlaqan mom moy waxu moy ñaarel mom moy premier wax ji deng ñaarel bi mom la ñëkke mom ñaarel wax ji la ñëkke wax ju ñëkke ji mom la tek ñaarel ñettel bi moy bi nga xamantene mom lañ wax ni war rabi ñentel moy mooy tuqbalu ida zakkaahu ahadun min a'immatil jarh wa ta'dil ma'a riwayati wahidin anhu waxtaarahu abul hasan al qattan wa sahahu al hafiz ibn hajar rahimahullah maanaam eh, ñeenteel bi mooy dañu koy nangu su fekkente ne ki ko setal kenn la ci imaamu jarh wa taadil ànd ne maanaam ne kenn moo ko soloo kenn rek ka soloo ci waajooju waaye am na kenn ci imaam borom ko xam maanaam ñoo xam ne dañ koo eh, dañ ko eh, maanaam def koo setal loolu mooy raabiuha yuqbalu in zakkaahu xabrun waza fi nuxbatin raahu mu ne loolu moom mooy waxu kan mu ne loolu mooy waxu abul xasan al qattaan rahimahullah alxaafis ibn xajar rahimahullah moom la dëgëral mu ne wal xaamisu tuqbalu ida ishtahara fi gayri al ilmi wa riwayati kashtihaari amr ibn ka amr ibn maado yakrab bin najdati wa kashtihaari malik ibn dinar bi zuhdi juróomeel bi mooy comme li ñu wax xaamisuha in kaana min man qad shuhir bi maa si wal almi ka najdatin wabir maanaam euh, ñeen juróomeel bi mooy dañuy nangu ay riwaaya bi su fekkente ne dañuy nangu kooku noonu su fekkente ne dafa siiwee ci leneen lu dul xam-xam ak di solo ay xadis siiwee na ci leneen daal parce que bu siiwee ci xam-xam ak di solo ay xadis kooku taxul ñuy wax mais bu ko siiwewul loolu danañ nangoo waxam mu ne ñu ne ci ñeenteel ci juróomeelu wax ji mooy comme Amr ibn Ma'd yakrab ni nga xam ne noonu la siy rahmatullah ci maanaam akuk jàmbaare hmm, ak comme ni nga xam ne moom la Malik ibn Dinar rahmatullah siiwee ci ak dëddu àdduna mu ne waxtalafu kon lool mooy majhulu lan majhulul ayni waxtalafu aydan fi riwayati majhulul adalat majhulul adala zahiran wa batinan maa kawnihi maaruful ayni bi riwaayati adlayni anhu fa qabbalaha badu baaduhum mutlaqan wa qabbalaha fa qabilaha baaduhum mutlaqan wa qabilaha baaduhum ida rawaa anhu man laa yarwi illaa an siqa wuute nañ ci riwaaya koo xamante ne dañ ko réere maanaam dañoo réere kan ak maandu te ci zahir ak ci baatin xamuñu dara ci moom du ci zahir du ci baatin gis nañ ko daal euh, xam nañ ko ñu bari ñaar ñaar wala ñu bari solo nañ ci moom mais xamuñu de toute façon xamuñu ci moom jikko bu tax ñu mën a wax ni kii commando la la ki noonu maanaam zaahir ak baatinam daal dañ koo réere xamuñu tamit lu ñu ko mën a jamee waaw moom daal comme professeur yi ni ñuy def rek professeur yi gis nga la dañuy ñëw rek jàngale dem seen yoon benn waaye daan ni sëriñ kii borof diw moo ma jàngal wala diw moo ma daan jàngal euh, bañ nekkee ca eh, eh, école franco arabe nangam ah, day ñëw rek dem après day dem xamul xamuñ ci moom dara lu dul jàngale mii muy jàngale daal lii mu ma jàngal daal dana def kii jàngal ma jeex na comme loolu hmm? kooku euh, kooku xam nañ maanaam loolu kon moom ñaar ñu maandu bu ñu yëkkatee bu ñu solowee ci moom dañ day maanaam kon jëmm ji day daal yëkkatiku waaye nag ñenn ñi soloo nangu ko ci luñ joyal ñenn ñi nangu ko su fekkente ne ku dul lu ñu ci siqa dafa solowee ci moom waaye mu ne was saxiixu adamu qubulaha wa qawlul jumhur waaye nag li lii mooy ne duñ ko nangu su mooy waxul ñi nga xam ne ñoom ñooy jumhur mu ne wa amal mastuur zahir fi zahiri xaalihi walakinahu majhulul adalati batinan fal asax qubula riwayatihi li anna al ixbaara mabniyun ala xusni zann bir raawi mu ne am amma mastuur bi maanaam mooy ki nga xamante ne dafa maandu ci zahiru xaalam waaye nag ku ñu réere la ci maanduteem ci baatin loolu mooy li gën a wér mooy dañ koy nangu riwaayam ndax lan ndax xabaar dañ koo teg ci rafetu njort ci kii solo loolu comme niñ la ko waxee ci jamono yu njëkk yi de toute loolu mooy li gën a mooy ci comme ci jamono yooyu la euh, maanaa yi doon taxaw hmm? day loolu day daal di mën a taxaw mais suñu jamono ji moom sikk nekkul ci ne loolu boo ko defee dañ lay dribble ah non bul gis mukk dara ci net net bi wala nga gis ko ci ci ci ci télé bi waa ji wala yooyu noonu rek ñu naan la waa baax na nangam nangam wala nga dégg ko ci sëriñ si nii rek nga daal di jàpp ne dëgg la de ah comme niñ ko démontrer bi jollé ci mawdu bi ah, ah niñ démontrer affaire bobu lool moom dañ ko démontrer yaaka naa ni doy pour ñepp képp ko xamantene ah wax deug yalla nak ah deug nga bëgg gis nak ah yaaka nañ ni manam da nga xam nak effectivement li wax deug la nak quoi dafa dafa neexut a dégg mais nak c'est bon c'est la c'est c'est la triste réalité nak hmm c'est la triste réalité C'est la triste réalité. C'est la triste réalité. Euh, léegi euh, mu ne qaala ibnu salah ibnu salah al imam ibnu salah raximahullah mu ne wa yushbihu an yakuna al amalu ala hada al ra'yi fi kathirin min kutubi al hadith al mashhura fi ghayri wahidin min al ruwaat alladhina tuqadamu al ahdu bihim wa taazzarat al xibratu al baatinatu bihim ah, euh, nuru na ne nag mu ne mu ne imaam ibn Salah rahma mu ne nuru na ne nag ne lii la gis-gis gii daal la lu bari ci téere xadiis yi siiw yi ñoom moom la ñuy doxale ci lu dul benn du ñaar ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñiy solo xadiis yi nga xamante ne dañuy mënu dañuy sukkandikoo ci ñoom ba pare xam seen baatin dafa nekk loo xam ne day day jafee gis day jafee xam xam seen baatin dafa xaw a jafe mu ne wa hada al qawl saxaxu nawawi aydan wax jii nag imam an-nawawi tam moom la dëgër rahmatullah alayh wax nañ la alxaafis ibn xajar rahimahullah moom li mu dëgëral mooy lan mooy dañuy taxaw rek ba keroog ñuy am nde ba keroog ñuy xam ba xam wér na wala wérul waaye ala kulli xaal ci jamono yu njëkk yi ci saa si peut-être loolu mooy jamono yu mujj yi mais jamono yu njëkk yi moom lii nga xam ne moom la imam as-suyuti wax rahimahullah mom moy li li li li li mat a bàyyi xel wa fil asah yuqbalu mastur fi zahirin hmm wa fil asah yuqbalu mastur fi zahirihi adlun wa batinun khafi legi muné wa legi nak kon loolu mom moy ma'ruf mom moy al mastur moy majhulul hal legi muné wa min al ومن المعروف عينه وعدالته وجهل اسمه او نسبه احتج به لغي نك موي واخ كي خامني موي مجهول الاسم او النسب موي كيب كو خامتيني خام نانيو جيمم خام نانيو ماندوتيم وا ليغي خامتيني موم لا نيو ريري موي توروم ولا اسكانم مون داني كوي لاي مون وو في صحيحين من ذلك من ذلك كثير تي نيار صحيحين موم موي بو مال بخاري ومسلم رحمه الله عليهما ني ني ملني ني بري بري نيوم تي مون كا قولهم ابن فلان او ولد فلان كوم بون نان دومي ديو بار اكزامبل دومي ديو لولو بون كوي واخ تي صحيح داغي خامل كوكو تورم خامونو كو وقد جزم بذلك الخطيب في الكفايه الخطيب البغدادي رحمه الله واخ نون تي كفايه لوكو ها ا سولو wa naqalahu an alqaadi abubakar albaqillani rahimahullah moom noonu la ko solo ci alqaadi abubakar albaqillani rahimahullah mooy kan taalibi imam al ashari radiallahu anhu wa allalahu bi anna aljahla bismihi la yaxul la yaxullu bil ilmi bi adalatihi te ko layee mooy ne réere gi ñu réere turam loolu du am benn effet du yàq dara ci réere gi ñu réere lan maanaam du yàq dara ci ma xam bi ñu xam ak maanuteem maanaam bu ñu xësee ba xam ak maanuteem vraiment euh, loolu yàqul dara ci réer gi ñu réere lan réer gi ñu réere turam ah, léegi mu ñëw ci beneen masala ah, mu ne man yàqul maanaam loolu li euh, euh, euh, masala bi mooy koo xamante ne dafa solowee xadis mu soloo ko ci nit sëriñam mais dafa siki sàkka ci kan la ko solowee maanaam xamatul kan ci sëriñam yi moom la solowee wax ci bu boobaa ndax wax jooju dañ koy nangu wala duñ ko nangu lii moom mooy masala bi mom lay traité ci ñaari bayt yi di ñew inshallah allah waman yaqul kep ko xamne ne da nga wax ne akhbarani khabarana ma fulanun diw aw bok haza ke ki nga wax ko man dal diw wala diw ñom ñooma ñooma wax waman yaqul akhbarani fulanun naw gis nga fulanun naw ngay wax manam ndax lan ndax way wi da ngay jël euh, tanwin bi nga dugal ci hamza bi hmm, ngir maanaam ne fulaanu naw hada li adlayni qabulahu ra'aw ah kon ku wax ne diw kat wala diw nga ne waaw mu ne la li adlayni mu wax ko ñeel ñaar ñoo xamante ne ñu maandu lañ maanaam ñaar ñi nga xam ne ñoom la wax ne solo na ko ci ñoom ñooñu ñu maandu lañ waaw ñaar ñëpp ay sëriñ yu maanu lañ mu ne waaw mu ne xabulahoo ak nangu riwaaya boobu ra aw moom lañ gis borom xam-xam loolu lañ gis te loolu mooy li mooy su fekkente ne ko euh, euh, dama man de sama ñaari sëriñ yi par exemple mu ne euh, lii de dégg naa ko ci sëriñ diw ak sëriñ wala boog sëriñ diw daal kenn ci ñoom ñaar moo ma nettali nee ma nangam loolu dama koy daal mën a nangu bu fekkente ne ñaari sëriñ yooyu maanu nañ parce que xam naa ne budul kii dikkee te ñoom ñaar ñëpp maandu nañ kon loolu amu ci effet le fait que ma réeree nit ko kon gis nga boo xoolee ba tey dafa am rapport ak jaxaala le fait que ma kan la ci ñoom ñaar loolu amul amul effet parce que xam naa ne de toute façon ki ma solo ci moom kooku maandu la te loolu moom mooy li am solo loolu la imam al-Khatib euh, al-Baghdadi rahimahullah wax ni ki noonu euh, euh, maanaam mu joxe ko ci exemple exemple bi nga xamante ne nag moom la joxe mooy. حديث شعبة ابن الحجاج حديث شعبة مجلوكو تي سلامة ابن كهيل مصر جلوكو تي أبو الزرعة ولا جسمي أبو الزرعة من عن أبو الزرعة أو عن زيد بن وهب خمول تي نيوم نيار نيوني كان أن سويد ابن غفلة دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إني مرت بقوم يذكرون أبا بكر وعمر حديث سيوبو أه مانام voilà maanaam Shu'ba dafa jël ci salamat ibnu Kahyal mu jël ko ci Abu Zar'a wala Zayd ibn Wahb xamul ci ñom ñaar kan la mais comme ñom ñaar ay siqa lañ mu ne kenn ci ñom ñaar ne Suwayd ibn Ghafla dafa dugg ci sayyidna Ali ibn Abi Talib karramallahu wajho mu wax ko ne ko yaa man dama romb ay nit ñuy tudd Abubakar ak Omar manam di wax ci ñom lu ñaaw et cetera manam sayyidna Ali radiyallahu anhu mer ci lolu Euh, léegi kon loolu moom loolu lu ñu kooku kooku lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu mën a xam la lu ñu mën a nangu la léegi nag mu ne waaw mu ne waaye nag waaw su fekkente ne ñaar ñooñu xamuñu leen walla xam xamuñu leen wala am na kuñ ci kuñ ci xamul dañu diw wala keneen wala boog ñaar ñooñu mu tudd kenn ki ku maandu la waaye keneen ki maanduwul maanaam kenn ki siqa la waaye ki ci des moom dëgërut waa kon nu ñu def mu ne fa in yàqul su fekkente ne dafa wax ne dama solo ci diw aw wala boog xayruhu keneen ku moom maanaam man daal euh, li ma dégg daal ci alaaji abdullah ko dégg radiyallahu wala boog ci keneen wala ci keneen <laughs> aw wala boog yujhalu dafa réere baadu alladi kenn ci ñi dañoo réere yujhal dañoo réere baadu alladi kenn ci ñi nga xamante ne sàmmaahumaa ñoom ñaar la tudd maanaam ñaar ñi nga xam ne ñoom la tudd dañ koo réere waaw kom bu ma ne ah man de ci alaaji abdullah ko dégg wala boog ci oustaz Samba Gueye kuy kooku kuy oustaz Samba Gueye xamuñu ko ñun en tout cas ñun xamuñu ko alaaji abdullah xam nañ ko radiyallahu waaw moom siqa waaw sa sàmba géej bi nga wax ah xamuñu ko de ah xamuñu ko ah, ah kon nag hmm? wala man ci alaaji abdullah déggee mbir bi radiallahu anhu wala ah wala keneen ku dul moom daal waaw nga ne waa ñaari kaay yi nu may def mu ne laa tuqbal bul ko nangu de bul nangu wax jooju déedéet loolu bu ci sukkandiku abadan ah waaw waaw bu ci sukkandiku le fait que ñu euh, wala keneen le fait ñu jaawale ko loolu tegtalewul ni waa jooju xanaa kon ku maandu la war a doon ah déedéet tegtalewu ko de déedéet buñ ko nangu bu ko nangu de laa ilaha illallah ah loolu yéeme ah Cheikh Ahmed Shakir rahmaullah mu ne إذا قال الراوي أخبرني فلان أو فلان على الشك وسماهما وكان عدلين كان الخبر مقبولا لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة وقد سمعه من أحدهما وإنما شك في تعيينه وإنما شك في تعيينه بخصوصه فهذا شك غير مؤثر في صحة الرواية bu انتني كي صلو حديث بدفنه ديو ولا ديو نيوم نيوم دي ما نمتك سيك ساكا نيوم sikki sàkk ñoom diw sàngam wala diw sàngam eh, ci El Hadj Abdou Aziz daal radiyallahu anhu wala ci El Hadj Ibrahima Sakho daal radiyallahu laa déggee ñu nettali ma ci El Hadj Iliman Sakho radiyallahu anhu mun na dafa déggee ci Seydi Hadji nangam radiyallahu anhu ah kenn ci ñoom ñaar laa ko déggee mu nettali ne ci El Hadj Iliman Sakho radiyallahu anhu moo ne El si El Hadji Malick moo ko wax nangam ah non non loolu si xaar loolu wér nañ wér nañ wér nañ parce que ñoom ñaar xam naa leen xam nañu leen kenn de façon xaw kan la ci mais kenn ku mën a doon ci ñoom càllale bi wér na ñaa ngi dégg loolu la mu ne dañ koy nangu ndax de toute ku mën a doon ci ñoom taxu ci ci ku wóor la rek dem ci keneen ku wóor te dégg na ko ci kenn ci ñoom ñaar li mu sikki sàkk mooy ci mën a wax ne kii la diwu ngam la moo tax googu sikki sàkk du am jeexital ci li nga xam ne moom mooy li ñu solo mu ne wa amma ida kaana ahaduhuma siqa wal axaru gayru siqa aw majhulu l adala fa inna al xabara laa yuqbalu lixtimaali an yakuna lam yasmaahu min alsiqa wa samiahu min al axar wal axar laysa bi xujja mu ne niki noonu mu ne su fekkente ne nag par contre su fekkente ne daf ko déggee ci kenn ci ñoom ñaar waaye kenn ki siqa la ki ci des du siqa wóorut du siqa wala mu nekk koo xamante ne ku ñu réeree la ak maadu tem boobaa xabaar boobu kenn du ko nangu lax lan mu ne ndax possibilité bi nekk ci ndax dafa yanu ne maanaam possibilité bi nekk ci ne déggewu ko ci ku siqa ki waaye ci keneen ki dul siqa moom la ko dégge wala ci keneen ki ñu réere la ko dégge te kooku ñu réere mën na possible tam mu bañ a nekk ku wóor yaa ngi dégg walla ñu réer rek maandu tem mën na bañ a nekk ku maandu loolu moom mooy problème bi kon de toute façon keneen ki comme moom du lay du du du lay rek moom kenn du ko mën a kenn du ko mën a sukkandiku léegi imaginal bu ne ki ma ko solo ci alaaji Abdou Aziz daal radiyallahu anhu laa ko déggee wala daal en tout cas kenn daal la ci sëriñ yu maandu yi moom laa ko déggee loolu ba tey du lay parce que yow ki nga jàpp ne sëriñ bu maandu la en réalité mën na bañ a nekk sëriñ bu maandu te loolu xam nañ li ma bu baax xam nga bu baax li ma la wax. boo <laughs> bàyyee xel li ma la xoon ci mawdu am da xam ne maandu ti jafe na yàlla nañu yàlla sàmm melul comme ñun niñ ko foogee nga xam ne tur mooy tax nit maandu déedéet taxul nit maandu de melo mooy tax nit maandu yaa ngi dégg tur ak sant taxul nit maandu melo mooy tax nit maandu ay critère la ay attribut la yu nit di ame ñu xam ne kii maandu la du turam wala santam moo koy tax wala fa mu dëkk comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee ci fan bi ñuy gis mawdu' bi ak yi ci tegu gis nañ ne gars yi en réalité dañuy lan dañuy expliquer dañuy expliquer c'est la triste réalité c'est la triste réalité c'est la triste réalité ah wa kadhalika aw ghayruhu fa samma ahaduhuma fa samma ahadahuma waa wa abhamal axar laa yaxtaju bihi li ihtimaali an yakuna samaahu minal mubhamil majhul mais ni ki noonu su fekkee ne daf ni diw wala keneen ku dul moom mu tudd kenn ki waaye tuddul keneen boobaa duñ layee ci moom ndax possibilité bi mu nekk ne daf koo dégg ci ki nga xamante ne moom mubham la maanaam tudduñu turam waaye te dañ koo réere kon euh, lii moom mooy li nga xamante ne maanaam moom mooy li aju ci masala boobu itam léegi nag kon ñi nga xamante ne moom mooy la aju ci nit ka ñu réeree ak yooyu wóor-wóorloo ci mbir moomu walillahi alhamdu wal minnatu maanaam gis nañu ko léegi nag masala yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu maanaam ñoo tegu ci suñu masala bi maanaam day wër-wër loo ci ki nga xam léegi nag maanaam bi ci tegu après dinañ gis yeneen mais en tout cas bi ci tegu juste ceci mooy li wër-wërloo ci koo xamante ne nitu bidaa la voilà nitu bidaa la selon bidaa bi day tax mu nekk yéefar wala bidaa bi du tax mu nekk yéefar loolu moom euh, ci jotaay bii di ñëw inchaa allah moom la ñuy gis yàlla nañ ci yàlla yeggale ak jàmm ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam